asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di euh, dalal ci seen site d'information Sénégo tey nag ñu am mbégte di dalal ci seen premier numéro seen émission seen débat fii ci Sénégo ñu am mbégte di ci dalal kàngam bu mag journaliste bu mag di Mamadou Sy Albert xam ngeen ne nag tey euh, la ñuy ndar képp li nga xamante ne moom mooy élection campagne électorale ñeent élection législative ñu war ko amal dimanche bii di ñëw yé moo fanweeri fan ak benn ci weeru sulet loolu nag di prétexte ngir ñu def euh, taxaw seetlu xool naka la campagne électorale bi déroulé li nga xamante ne moom mooy euh, déclaration yi leader politique yi def moo xam ci kuje ki wala ci pouvoir bi ak euh, li nga xamante ne sax moom mooy euh, probabilité cohabitation politique nag gis ngeen ne fan yëpp ñu ngi ciy waxtaan ak ñëwu ko maître Abdoulaye waa di tête de liste coalition wàllu Sénégal ni ki tey ajjuma bi loolu yëpp di prétexte pour ñu taxaw def si ab jàngat àndi ci ki nga xamante ne moom mooy suñu gan Mamadou Sy Albert du journaliste mag mais laataa ñuy dugg ci waxtaan bi Mamadou Sy Albert dañ lay bàyyi nga nuyoog internet yu lay seetaan jamono jii nii waaw Thiaw maa ngi lay nuyu di la di la fay di la di la sant ci invitation bi euh, toujours may am mbette ñu euh, waxtaan surtout actualité campagne bu mel ni di nuyoo aussi waa kër gi ak internet yëpp di la félicité ci liggéey bi nga def bu am am solo lool merci. di wax ne c'est toujours un plaisir pour nous tamit ñu lay recevoir fii ci suñu plateau wax nañ ko sànq prétexte waxtaan bi mooy euh, élection législative bi nga xamante ne war nañ ko amal euh, ni ki dimanche bii di ñëw euh, le 31 juillet mu mel ni def nañ fi campagne électorale boo xam ne daanaka campagne électorale daan na fi am mais bii dafa mel ni dafa am spéci spécificité maanaam lu spécifi lu spécial la ñu bëggoon xam ban jàngat nga am ci déroulement campagne électorale bi de manière globale. mën mënuñu wax nekk campagne bi euh, trois semaines ñetti semaines euh, déglu nañu coalition yi euh, lu ñu gis daal tey jii mooy que am na importance muy acteur politique yi muy civil muy même nitu diine yi ku nekk déglu na trois semaines lu muy firnde mooy que jox nañu campagne bi àq sur le plan politique vraiment am na mobilisation bon am na aussi enjeu enjeu bi xëy na xam naa ne loolu moo tax mu am solo lool ndax boo gisee depuis élection locale ba tey ji xale yi ñu ngi dugal seen loxo ci politique maire yu bari par exemple changé nañu euh, ci élection locale yu yu yu euh, passé surtout maire jeune lañu am na aussi maire ay jigéen euh, donc soo gisee xale yi gën a am accorde importance ci campagne électorale surtout législative jigéen yi taxaw bon nitu diine yi taxaw loolu lu muy firnde mooy que suñu démocratie moom euh, sax na jox nañ ko axam assemblée aussi euh, ni ñi xam nañ ni pouvoir la pouvoir la président ni mu amee pouvoir ci gouvernement assemblée nationale loolu noonu la amee gouvernement mën nañu wax daal que démocratie bi mu ngi dund ah, citoyen acteur politique ñoom ñëpp ñu bàyyi xel ci campagne ñu trois semaines loolu euh, lu baax la ci démocratie bon xëy na aussi dina ñëwaat ci waxtaan bi des na nag lu bari ah ku nekk am na yéene euh, wante politique aussi dafa am yoon euh, yoon boobu nag da dañ ko war a sàmm pour mu gën a suñu démocratie gën a am gën a am doole. très bien campagne électorale bu ñu ko waxee programme tax euh, du côté du leader par exemple ñu taxaw jàkkaarloog askan bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a dagaan baatu askan bi. wax leen exactement lan lañ fas yéene def bu ñu demee ci pencum ndaw réew ma mais ñu gis ne particularité bii ni euh, campagne électorale bi c'est les invectives à la place des programmes loolu ban jàngat nga ci am parce que gis nañ ci tension boo xam ne daanaka ci ci deux bords yëpp aussi bien côté kuje gi côté pouvoir bi. waaw jàngat bu ñu mën a def mooy que euh, débat politique euh, amatul doole ci Sénégal depuis quand même boo xoolee depuis 2000. mu am alternance ba tey jii. bon débat politique mooy weccanti xalaat que que soo gisee euh, tey jii amul benn parti bu taxaw ne damay dem élection suma programme a ngi nii parti yëpp dañu dañu dañu laxatu ci coalition muy muy parti président Macky Sall muy parti opposition PDS muy PASTEF ku nekk dafay jéem a am coalition loolu euh, lu mu firnde mooy que. Euh, parti yi amatul débat seen biir diggante coalition aussi amul débat euh, soo gisee sax nu ñu créer coalition yi à part Benno Bokk Yaakaar coalition yëpp ci précipitation lañ leen créer bu ñu leen di créer deux mois maximum wala un mois am na ñu nga sax matul un mois euh, ñu de yàkkamti monte coalition pour dem élection loolu lu muy wone mooy que campagne bi la ñu jiital élection la ñu jiital jiitaluñu programme ndaxte ci ci yoon balaa ngay sumb campagne yow da nga war a am programme soo amee programme ma am programme keneen am programme suñu daje mën nañu am coalition mais coalition bi lu ko lal lu ko nar a lal mooy programme wante lii lu ñu gis seen programme yëpp lu ko lal mooy dem élection am député donc loolu euh, moo tax débat bi soo gisee sax euh, seen biir amul débat muy coalition Benno Bokk Yaakaar APR ak ñi mu àndal dégguñu ñu debaat ci seen programme électoral coalition wàllu naka noonu soo gisee sax euh, wàllu intercoalition euh, bi tax taf la ñu def ba indil leen coow seen biir donc programme bi dafa de. mais lan moo waral précipitation boobu justement. mais précipitation bi mooy que fu ñu toll nii euh, parti politique moo doyatul nit ñi. Euh, parti bu mag amatul ci Sénégal waaw PS la ñu amoon ak PDS ñoo dem coalition ñu am victoire Sopi 2000 depuis mille ba tey ji coalition mooy mooy gagné coalition mooy perdre donc loolu moo tax euh, euh, politiciens yi lu tax amatuñu confiance c'est que amul lu ñu leen di wuute ku nekk boppam la gis ku nekk poste la gis ku nekk ji nekk njiit moo ko intéressé mais du euh, du dundinu askan bi du programme pour changer donc programme politique bi moo moo moo wadd ci suuf et loolu moo tax mënuñu débat seen biir mënuñu débat aussi suñu demee ci campagne gis nga sax campagne bii di euh, jeex euh, amul benn débat politique diggante coalition pouvoir ak opposition amul débat aussi diggante Euh, coalition opposition bi euh, dañu xasante lépp lu ñu wax pour xas xas keneen ki amul vraiment débat bi nga xam ne euh, même suñu xoolee lu lu waroon nekk débat dañ ko foosi am na ay problème yi nga xam ne wax nañ ko par exemple question Casamance wala question ethnie wala question religion loolu question yu yu jafe la mënoon nañu toog waxtaan pour gën a renforcer suñu démocratie wante loolu dañ ko utiliser bon ku nekk di xas keneen kii di saag fii di xeex fii. man manque de programme boobu justement nga baal ma ban jeexital la mën a am ci pencum ndaw réew yi su fekkee ñu ngi battre campagne te sóoraale wu ñu li nga xamante ne moom mooy aspiration sénégalais lambda bi. ben jeexital bi boo gisee par exemple Benno Benno campagne bi yëpp. lu ko soxal mooy wax Sénégal yi Macky Sall liggéey na lii ak lii ak lii réalisation du président jox leen Macky Sall majorité mais su ñu amee majorité amul dara lu ñu nar a def xanaa delloo assemblée ci loxo Macky Sall et loolu lu Sénégal yi bañ ku ku nekk tey ji Sénégal xam nga ne député ni ñu koy tànnee baaxul député amatul compétence baaxul assemblée nationale amatul pouvoir législatif foofu la ñu doon xaar parti politique yi ku nekk ñëw ne man pour tànn député fii laa ko teg dangay am xam-xam da am expérience da ngay am njub da ngay am valeur da ngay am da ngay nekk modèle mais amul benn parti bu ne man pour ma tànn député fii laa koy teg soo gisee aussi assemblée nationale bi déggoo kenn ne la euh, tey jii euh, gaz ak pétrole am na mais gaz ak pétrole xam-xam la laaj. ressource naturelle mën nga am sa ressource mais ñu ngi koy gis soo gisee par exemple dama lay jox rek exemple euh, Sonatel Sonatel ñun ñoo ko moom. ñun ñoo am suñu environnement mais tubaab yi mooy ñooy tax Sonatel fonctionner parce que ñun amuñu technologie bi loolu dafa war a euh, waroon nekk exemple ci même ci assemblée nationale euh, naka lañuy ñuy def loi. bi nga xam ne suñu amee Sonatel wala suñu amee gaz suñu amee pétrole ñu am loi bi nga xam ne dina tax sénégalais yi mën a gis seen bopp ci seen alal mais loolu dafa laaj nga gëstu soo jëlee beneen cop euh, domaine aussi mooy jën amatul Sénégal mais pourquoi jën amul parce que ay multinationales ñoo am doole pour dem ci géej ñoom ñoo am moyen pour dem jaay feneen mais naka la ñuy fexe ci yoon ci loi pour que suñu alal mën a nekk suñu alal mais aussi ñu am loi bi nga xam ne dina mën a protéger sénégalais donc pour wax la daal que assemblée yi joxuñu ak xam soo soo tànnee ki nga xam ne xamul dara ci droit xamul dara ci loi xamul dara ci coopération internationale mais kooku mënul défendre askanam donc loolu ko point faible la ci euh, campagne bi ak euh, tànneef bi nga xam ne moom la sénégalais yi teg pour mën a tànn justement ñi leen war a représenter ca pencum ndaw réew ma mais lan moo waral course bi su fekkente ne ñi ñu teg au devant de la scène ñoom ils n'ont pas les aptitudes su fekkee noonu lañ ko mën a expliquer ndax gis nañ fi ñoo xam ne daanaka investir nañ leen ñu ngi sur le terrain mais bokk na ci discours bi ñuy avancé xaalis taxu leen jóg ñëpp xam nañ ne salaire u député ça tourne autour de un million trois cent ak avantage yi ci topp ñoom dañ koy écarté teg ko à l'écart loolu taxu leen jóg lan moo leen taxa a jóg justement ba mu jaral leen invective yeeg yu nu jóg loolu ñun euh, suñ ko waxee ak suñ ko waxul euh, gis nga assemblée euh, dafa am solo dafa am solo ni ñuy tànnee président de la république noonu loolu la ñu waroon jox importance président de l' assemblée nationale parce que président assemblée nationale nguur la yore mais nguur boobu su fekkente ñi nga xam ne ñu ngi assemblée du ñu toog ak askan bi gis gisoo benn par exemple même soo xoolee département Dakar nga am sept sept sept députés mais normalement ci cinq yi mais sept députés yi war nañu am pexe toog ak waa Dakar ci département bi toog ak maire bi toog ak ak les autres maires toog ak souci ak association jeunes pour que Dakar au moins au moins mën a wax ne que ñun suñu député yi lii la ñu war a défendre mais soo xoolee bu baax assemblée nationale balaa ñu fay dem ci président la ñuy jaar président moo leen di wax loi baa ngi nii def def leen lii ñu voté ko député bi amul benn benn sañ-sañ pour pour bañ loi bi nga xam ne président moo ko santaane donc il faut que ñu delloo suñu xel pour xool pour wax la sax par exemple système éducatif mais mosoo dégg assemblée ne damay def enquête seen grève yi bari la ñëpp nee nañ ko bari la seen situation bi dafa compliquée mais assemblée war na def enquête pour xool système éducatif bi lu lu tax lu tax mu mu mu daanu noonu ban solution la ñuy def mais tant que ay député bi mënul toog ak askanam mënul défendre donc ça veut que moom lan la nar a défendre président bi lay défendre ak salaire am ñoom ñëpp ñu ngi wax ni député Macky Sall dé président de la république mais loolu kenn waru ko woon nangu parce que député askan bi moo la tànn ni ñu tànn président pour mu nekk président de la république député bi noonu lañ ko tànn pour mu nekk député donc su demoon assemblée dafa war a yóbbu foofu programme askan bi président aussi suñ ko suñ ko tànnee président dafa war a taxaw ci programme askan bi foofu mooy suñu suñu problème que en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur politiques yi dañu ak dañu aakimoo politique loolu mooy dëgg gi dañ ko. aakimoo sax def ñuy permettre ñu def euh, benn transition bu ndaw dem ci euh, déroulement campagne électorale bi parce que am ne beneen particularité boo xam ne ñëpp constaté nañ ko. ay leaders politiques yoo xam ne ils pas sur les listes boo jëlee le cas de la coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne titulaires yi bokkuñ ci pourtant ñoom ñoo occupé le devant de la scène de sorte que ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci liste suppléants yi mënuñu leen xam boo jëlee Ousmane Sonko par exemple partout où il passe vraiment il est vraiment la guest star yi mu ci kaw jël micro bi wax ñee loolu ndax stratégie bu baax la. waaw soo soo gisee euh, maa ngi la doon wax que depuis locale xale yi ñuy dugal euh, seen loxo ci politique jigéen yi naka noonu mouvement associatif naka noonu génération ñoom Sonko ñoom ñooy jeunes yi muy Sonko muy Barthélémy Dias jëlal Barthélémy Dias nekk maire de Dakar bon euh, soo demee na noonu la soo demee Guédiawaye c'est la même chose dafa am génération bu bees bu ñëw génération boobu euh, lu tax xale yi ak jigéen yi ànd ak ñooñ parce que gëmatuñu ancienne génération bi gëñu gëmatuñu ancien parti donc y a problème de, de génération que politique mu ngi changé maintenant les anciens parti bon ñu ngi def pour toujours euh, ñu ñu ñu ñu ñu nekk majoritaire mais malheureusement euh, soo gisee aussi parti politique yi amul renouvellement générationnel ah, mag yi toujours ñoo jiite parti ñooy ñooy nekk ci gouvernement ñooy nekk ci assemblée donc am na conflit de génération euh, je crois que euh, soo moytul euh, en tout cas électeurs yi dinañu choisir ñu gën a jeune loolu mën na nekk critère de choix ci élection ci élection législative. critère de choix mais pour le préciser un peu la question comme ni ñu ko waxee sànq gis nañu Sonko il ne sera pas député parce que tout simplement il était sur la liste nationale. liste titulaire yi liste boobu tey jii bokkul ñi waroon nekk de la scène en tout cas li Sénégal yi doon xaar mooy euh, les suppléants ñu nekk au devant de la scène yéen micro bi wax ñoom mais Sonko la ñuy gis loolu dañ bëgg a xam ne stratégie bu baax la wala boobu am na lu dalu ci suuf ah oui bon euh, ñoom dañu dem euh, ci conseil constitutionnel constitutionnel moo invalider seen liste bon donc jël euh, suppléants yi ñoo ñoo ñoo dem élection loolu quand lu bees la kenn mësu ko gis ci Sénégal bon léegi nag stratégie lu tax euh, Sonko ak les les titulaires les vrais titulaires lu tax ñu def campagne parce que xamuñu ñeneen suñu su ñu leen bàyyoon ñi nga xam ne suppléants ñu def campagne du ñu am import impact bu Sonko am Sonko fu mu dem day am foule donc Sonko dafa nekk leader c'est vrai leader de Pastef leader de Yewwi Askan mais ñoom ñëpp xamoon nañ ni suppléants yi mënuñu def campagne bu baax donc dañu lal stratégie pour ne titulaires yi ñooy def campagne électorale bi maintenant nag dañuy appuyer suppléants yi dans les départements loolu loolu mooy seen stratégie bon euh, communication bi jàll na wante wante xamuñu est-ce que électeurs yi dinañu tànn les ki nga xam ne xamoo ko gisoo ko déggoo ko bon suñ suñ la falul sa affaire la. loolu mooy justement li ci nit ñi di ragal parce que ñu investir la nga nekk ci liste kenn déggu la ngay wax kenn gisul kenn xamul ak est que loolu tamit mënul stratégie bi marché na en tout cas ci communication Sonko def na communication politique bu baax wante suppléants yi euh, mën nañu mën na mën nañu am lu leen bett parce que département quand même suñu choisir dañuy choisir ku ñu xam. bon loolu mën na nekk euh, une faiblesse ci seen stratégie c'est la même chose pour Benno Benno soo gisee ñu nekk ci euh, liste euh, liste titulaire yi ñu ci bëri yaakaaru ñu dem assemblée ñu ci bëri ci gouvernement lañu nar a dem donc ça veut dire que ñu nar a dem pour Benno à l'Assemblée nationale du ñu xam dara ci Assemblée nationale ça va être des post politiciens Euh, ñi nga xam ne mën nañu def ci dem ci gouvernement Macky Sall dina leen dugal su fekkee ñoom ñoo am majorité ñu mën a dem au conseil ñu placer leen foofu ñu mën a dem ci yeneen institution tous les responsables politiques dañuy dem ci pouvoir exécutif mais législatif ñu nar a dem ça va être la même chose que pour les suppléants de Yewwi du ñu am expérience du ñu am expérience politique du ñu am expérience campagne électorale du ñu am responsabilité individuelle et collective donc loolu soo soo moytul vraiment pour euh, àggale foofu suñu réflexion euh, niveau assemblée bi nar ñu mën na mën na beesi parce que yi ñu nar a yónni ci ci euh, Benno ak Yewwi Askan ak Wallu soo moytul du ñu am expérience politique. loolu dina doon catastrophe su parce que là déjà on est en train d'évaluer di ko dalee ci douzième treizième législature jëm ci quatorzième bi nit ñi espérer. que quatorzième législature bi tare fi jógee mais su fekkee niveau bi dafa nar a baissé loolu ce sera la catastrophe même. mais ça sera la catastrophe bon euh, et même attention attention kan la ñu nar su fekkente ne Yewwi Askan moo nekk moo nekk majoritaire kan moo mën a nekk président de l' assemblée nationale est-ce que dina am daraja Moustapha Niass est-ce que dina nekk kilifa est-ce que dina nekk responsable bi nga xam ne xam na pouvoir législatif est-ce nekk ki nga xam ne dañ koy manipuler. bon loolu c'est un risque pour not démocratie surtout pour le mais c'est la même chose pour Benno si si jamais ils font l'erreur su suñu defee erreur ba bàyyi cuune yi dem assemblée pour nekk taxawal foofu Benno mais ñooñu du ñu attan assemblée nationale assemblée nationale comme ni ma la ko waxee pouvoir la c'est un pouvoir législatif mm-hmm. c'est pas pour rien que Moustapha Niass toog foofu dix ans mm-hmm. Niass dafa xam état dafa xam pouvoir législatif dafa xam pouvoir politique Euh, bu am intelligence pour diriger pendant dix ans est-ce que tey jii Benno am na ki nga xam ne euh, àgg na am na expérience euh, Moustapha est-ce que Yewwi am na bon waxuma nag maintenant si par extraordinaire. il n'y voilà par ex par par par par expérience ñeneen c'est la même chose c'est-à-dire yeneen coalition yi préparé wuñu sérieusement seen seen député. Aar Sénégal au moins il des des anciens députés qui sont là-bas comme ñu ci mel ni Thierno Bocoum euh, ak euh, euh, l'autre là Cheikh Oumar Sy qui était là ñoom ñëpp ñu ngi woon ci douzième législature yi te ñoom kese lañ gis également ñoo xam ne teg nañ benn programme de législature boo xam ne daanaka peut-être sénégalais ñu ngi ci ñu ciy dox di ciy waxtaan ak yu mel est-ce que tamit mën nañu am confiance ci ñooñu comme quoi que tey jii nii bu ñu fa demee mën nañu wóotu ku ci mel ni Moustapha en tout cas lu ñu mën a wax mooy que Art Sénégal sur le plan sur le plan profil am nañu cadre ah muy euh, Thierno Alassane muy euh, Diouf muy Thierno Alassane muy maître euh, Dem bon am nañu profil am c'est des cadres mais c'est pas du politique c'est pas du politique donc il faut que nit ñi bàyyi xel que bon. Benno mën na gagné yow mën na gagné ak ak wàllu yeneen coalition de moindre importance mën nañu am score bu bu bëri mais dans tous les cas nañu def attention ci assemblée bu nar a ñëw su su nekkee assemblée bu nga xam ne amul qualité loolu musiba la ci suñu démocratie et même et même la gestion de l'État soo moytul dina am conséquence négative. Euh, négative donc c'est une question qui est là loo xam ne peut-être tontu bi nañu après euh, euh, le scrutin du du dimanche ñu avancé tuuti wax ci li nga xam ne moom mooy déclaration yi gis nañ ko ci mel ni Ousmane Sonko ba ba léegi ñu des ci moom ci déclaration bi mu def daanaka ñu bëri xaaruñu ko woon parce que Ousmane ko ku xam-xam ne euh, il fait dans les attaques di riposter de temps en temps mais cette fois si dañu gis mu attaqué ñi nga xam ne ñoom ñooy ku yéeg politique ci mu ñu mu bokkal affaire bi loolu ndax stratégie la wala dérapage la. la bon euh, Sonko euh, defe naa am na lu nit ñi lu ñu lu ñu comprendre ah Sonko euh, Sonko kenn mënu ko jël comme comme les autres politiciens Sonko bokkul bokkul ak génération boobu non parce que gis nga histoire politique dafa am importance mais histoire nit ki am na importance Sonko c'est une victime de ce régime-là ah nga nekk fonctionnaire ñu dàq la nga nekk syndicaliste ñu dàq la euh, nga nekk acteur politique ñu jiñ la li nga xam ne lu gën a il est il est il est il est brisé pour moralement. mais ñi mu attaqué euh, ah, non non non c' est à dire que gis nga expérience aussi soo comparé Ablaye Wade euh, Ablaye Wade ancien doyen de faculté de droit la Senghor daf ko toroxal. alors était au pes mais bu mu demee ba ba teg PDS pendant quarante ans amul lu ñu waxul Ablaye Wade Ablaye Wade était virulent gis nga Ousmane par exemple Ousmane Ngom amul lu mu yekkul PS il était jeune il était persuadé de ses convictions libérales euh, il, il ne reculait devant rien Ousmane Ngom c'est la même chose pour Sonko C'est la même chose, c'est la mentalité de, de, de du... Même s'il faut piétiner ses, Non, c'est la démarche. Peut-être que démarche bi, par exemple... Est-ce que mooy démarche bi que d'attaquer l'opposition parce que xam nañu bu ñu euh, euh, alliance boo xam ne day regrouper wàllu Sénégal Yewwi a nekkati Euh, Yewwi Askan trois jours quatre jours moo ko dese ci campagne mu gis ne que quoi opposition bi am na ñi nga xam ne seen position leerul mais là c'est normal que tu attaques pour pour da ngay pousser sa adversaire bi mu clarifier position bi parce que non mais c'est une stratégie tu, tu vu que bi mu leen attaqué euh, aar Sénégal génne na opposition bi génn na pouvoir bi génn na ñoom ñëpp ñu dal ci Ousmane Sonko mais avantage bi mu am c'est que moom mooy débat bi tant que ñu ngi jël Sonko comme débat objet sujet de débat tout le temps Sonko Sonko Sonko mais loolu da nga koy defaral c'est lui qui en profite parce que waxam rek la ñuy wax c'était la même chose pour Ablaye Wade Ablaye Wade même bu demoon ngénte nit ñi bon dañ koy fekk ci ngénte bi ba à un moment donné dañu waxoon Abdoulaye Wade dañ ko war a tere dem ngénte wala dem euh, funérailles c'est la même chose pour Sonko maintenant peut-être que ni muy waxee loolu mën nañ ko critiquer ni muy waxee parce que politique aussi da ngay sóoraale ëllëg comme ni nga ko waxee mën nañu dem assemblée moom du dem assemblée nationale Sonko mais naka la ñuy fexe suñu suñu demee assemblée par exemple opposition nekk majorité bennoo nekk minorité là c'est de l'intelligence fu fu ñu jaar aar Sénégal seen allié la fu ñu jaar bokk gis-gis seen liggéey seen allié la donc foofu foofu la manqué maturité que que mënoo dem quand nga attaqué opposition bi yëpp déedéet déedéet da ngay xool am na ci opposition bi ñi nga xam ne ñii mën nga ànd ak ñoom muy assemblée mën nga ànd ak ñoom ci présidentielle 2024 mais am na xëy na ki nga xam ne kii wóor na la du opposition dina dem ci majorité bi su la wóoree loolu mën kooku mën nga ko attaque mais mënoo rek boole assemblée euh, opposition bi rek nga nga nga nga loolu da ngay créer confusion ça te dessert euh, loolu waru ko waru ko def ci communication bon c'est la même chose aussi pour euh, pour soo gisee maturité bennoo mais Benno attaqué wul kenn trois semaines Sonko rek la ñu attaqué loolu mooy maturité politique que yaa ngi ci géew bi am nga adversaire adversaire de Sonko c'est un seul c'est Benno c'est pas l'opposition loolu mën na nekk erreur mën na ko jural aussi bon euh, des des des conséquences négatives mais j'espère que que ñoom ñëpp bon dinañu gën a dal. Euh, comment. mais mais soo soo gisee campagne bi ni mu demee euh, Benno li mu def campagne présidentielle déguisée la lu ñuy def yëpp dañuy préparer en majorité président euh, parlementaire mën a dem présidentielle 2024 mais Sonko ak Benno ak Yewwi Askan c'est la même chose euh, coalition parlementaire bi ce n'est qu'un prétexte pour préparer 2024 ñeneen ñi c'est la même chose avant 2024 surtout côté opposition bi ñu am majorité justement mun a instaurer li nga xamante ne moom mooy la cohabitation politique cohabitation c' est vrai que mosuñu ko expérimenter fii ci Sénégal mais am na ay yoo xam ne ci mel la France avec. Euh, Le, le régime de de Jacques Chirac Jospin et tout ça expérime nañ ko foofu gis nañ conséquence yi mu fa am opposition bi daanaka mooy euh, seen cheval de bataille jamono jii nii bu ñu amee majorité justement dañuy pous euh, le pouvoir à à la cohabitation politique loolu Sénégal mosu ko instauré mosu ko expérimenté système boobu ban jàngat nga ci am ndax Sénégal toll na foo xam ne mën na dem ci cohabitation ñu dund ko san problème. bon suñu démocratie moo moo ko laaj moo ko laaj ah parce que boo boo gisee sax euh, euh, campagne électorale Benno moo nekk pour le président mais ñun ñu sept autres coalitions ñoom ñëpp ñu ngi ci opposition même euh, am na ñi nga xam ne. des coalitions de parrainage bi moo leen éliminé ñu ngi ci opposition bi donc Sénégal euh, démocratie moo laaj tey jii nga am pouvoir exécutif bu fort mais nga am assemblée bu fort su suñu démocratie moo ko laaj te léegi ti nangutuñu benn parti aakimoo assemblée aakimoo gouvernement aakimoo lépp ci ci loolu lañu lañu ci yoon boobu la ñu nekk wante amul consensus mais sénégal yi ni ñuy yeewoo tey ji ni ñuy ji participer ci élection locale ak législative mën nañu am réaction euh, cohabitation cest à doyle nañu yéen jël ngeen nguur pendant 60 ans defu leen fi dara jël ngeen assemblée defu leen fi dara léegi ñun dañu dañu dañu essayer gis nga 63 Senghor nag moo nekk président Mamadou Dia moo nekk euh, président du conseil Dia influence bu jaa amoon ci nit ñi Senghor amu ko assemblée nationale bii di ñëw suñu amoon euh, cohabitation sénégalais yi ci assemblée bi lañu ñu gën a am yaakaar. dans ce cas le premier ministre sera issu de de mais est-ce que parce que bu ñu demee ci côté maturité ak ni ñu battre campagne mën menaces yi nga xam ne daanaka opposition bi koy teg ci kanam. est-ce que mënuñu day blocage parce que bu ñu gisee ni tenor du pouvoir ñoom bu ñuy wax dafa mel ni sax bu ñu tuddee cohabitation ñoom du ñuy tiit te cohabitation objectif bi dans le su fekkee dañu nar a cohabiter un président issu euh, que côté boobu warul am problème xam nga problème bi c'est psychologique que c'est euh, l'Afrique soo nekkee président da nga bëgg a lépp ak mu nguur yëpp. loolu loolu mënutul am mais cohabitation mën nga ko jël ci mairie par exemple mairie Dakar mairie Dakar tey ji maire bi euh, Barthélémy Dias la il est de l'opposition mais conseil municipal bi Benno a ngi ci Yewwi a ngi ci euh, wàllu a ngi ci parti yépp ñu ngi ci conseil municipal de Dakar Barthélémy Dias mënul décider dara fekk toogul ak conseil municipal bi loolu mooy cohabitation au niveau au niveau local au niveau au niveau local mais cohabitation entre exécutif ak législatif lu mën a am la mais vivre nañ lu mel ni cohabitation entre côté euh, président de la république le gouvernement et la mairie de Dakar ñu jàpp ne ñoom dañ leen waroon dugal ci programme bi ñu beddi leen ba ñoom ñu beru daal di commencé sànni ay tract def seen forme bopp loolu sorte de cohabitation la du woon lu yàgg avec le forum mondial de l'eau mu créé problème bu toll noonu est-ce que bu ñu bëggee dem ci cohabitation boo xam ne ce sera pour cinq ans du gën a grave. non pour man bon mën na grave su amee xëccoo su amee wante mënu mënul am xëccoo suñu constitution moo am moo jox président nekk chef de l'exécutif suñu constitution moo may assemblée nekk pouvoir législatif. suñu constitution dafa waxul mësul wax ne que da euh, obligatoirement il faut la, la cohabitation ou il ne peut ou il ne peut la cohabitation cest dire suñu constitution dafa souple bàyyi lépp lépp ci loxo askan bi gis nga askan bi bu décider yóbbu majorité assemblée président fii mu jaar deux choix la am soit mu nangul Sénégalais yi cohabitation soit mu bañ mu dissoudre assemblée nationale mais pour man cohabitation moo gën a baax ci Macky tey ji ci foofu la ñu xamee est-ce que Macky Sall am na maturité est-ce que mu ngi xool danger bu nekk ci Sénégal cest à ñun Sénégal dañu dañu tas te politique rek moo tas Sénégal même ci biir parti yi soo xoolee ay conflits yu dul jeex diggante opposition conflits yu dul jeex amuñu. culture démocratique e normalement cohabitation bu amoon président nangul sénégalais yi seen choix gis nga même consensus consensus sur le parrainage sur la parité sur euh, l'organisation des des élections c'est une porte de sortie à notre crise mais ça demande beaucoup beaucoup de maturité il faut nga am maturité il faut nga nangul sénégalais yi aussi parce que c'est ça notre problème acteurs politiques yi Euh, respecté wu tellement tellement souveraineté du peuple ça vraiment c'est ça le peut-être suñu malheure que président bu ñëw wala acteur politique bu ñëw moom nguur gi moo ko intéressé du du askan bi mais suñu bàyyoon xel euh, ci euh, chance cohabitation je pense que Sénégalais en tout cas bu ñu choisir cohabitation bon nañ ko nañ ko bàyyi ñu am intelligence gere ko mais maintenant c'est vrai que aussi Sénégalais yi mën nañu bañ cohabitation mën nañu bañ mën nañu jël majorité ñu jox ko ñu jox ko Benno loolu loolu aussi démocratie la. très bien euh, li ñuy dese ci temps bëreetul mais ñu laal beneen point boo xam ne c'est c'est d'actualité mooy euh, retour maître Ablaye Wade nekk tête de liste de la coalition wàllu Sénégal à 72 heures du scrutin loolu ban euh, jeexital la mën a am ci ci course bi. bon en tout cas c'est sur que Abdoulaye Wade du changé ah Abdoulaye Wade moom politique euh, ci ci. mais est-ce que changer justement la donne à 72 heures. ah si non Wade il est imperturbable si s'il vient avec euh, su ñëwee ci ci géopolitique euh, nga mu des benn wala ñaari fan PDS dinañu gën a gën a gën a dinañu gën am sawar mm. c'est que ñoom seen drop mooy Wade. ah mu ngi mel ni à 48 heures war dañ jox leen piqûre bon c' est sûr et certain que PDS dinañu xeex pour pour am euh, victoire euh, bon waa wàllu est pareil Yewwi Askan c' est même l' opposition Wade caution morale euh, donc euh, loolu mën na mën na mën na mën na leen en tout cas gën a mobiliser ñu gën a sawar gën a euh, mobiliser population bi pour dem voter parce que quand même quoi qu'on dise qu'Abdoulaye Wade am na électeur am na au moins 30 pour cent d'une élection présidentielle loolu lu am importance maintenant nag il faut pas que nit ñi aussi exagérer bon c'est ce n'est plus son temps que que mag la euh, nañ ko delloo njukkal wante wante bu bu ñu yaakaar ni quand même am na génération am na xale yu ndaw euh, loolu euh, loolu il faut ñu ñu xam ne que xale yi c'est pas parce que Abdoulaye Wade ñëw na que que dañu changer li ñu naroon def alors une information de dernière minute mooy médiation bi nga xamante ne euh, le promoteur Gaston Mbengue euh, dox na ko dem ci président de la république waxtaan ak moom ci kaaw l' ancien promoteur de lutte avec FRAPP qui était là Aline Poti Mbaye euh, nekk en exil du dund bitim réew justement Macky accédé à sa demande est ce que mën nañ xaarati lu mel noonu côté amnistie par exemple pour ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Sall ak Karim Wade d'ici 2024 bon mën nañ ko xaat mais mais quand même euh, de bokkul ah bokkul kii euh, Petit mbay affaire lamb la affaire corruption la bon leader la bon et puis euh, bon bàyyi ko mu ñibbisi quand même la bon entrepreneur la Euh, je je pense que lu décision bu baax la mu ñibbi si këram ñu baal ko mu mën a mu mën a dellu ci li mu li mu bëgg a def c'est un entrepreneur aussi bon maintenant pour euh, Khalifa et, et Karim c'est politique euh, je crois que c'est lié de soo moytul daal il faut ñu génn ci élection législative yi xëy na xëy na dinañu dinañu gis lu gën a leer que président bon mu ngi dem ci fin de mandat Euh, je pense que fii ak deux mille vingt quatre normalement normalement Macky Sall euh, du jógee euh, du jeexal deuxième mandat bi fekk réglé wul affaire Karim ak ak Khalifa genre politiquement c'est ce serait une grosse erreur que mu bàyyi ba deux mille vingt quatre pour régler ce, cette question là il faut mu vider ko il faut aussi je crois comme ni ni nga ko waxee bon y a de médiateur aussi pour Khalifa et pour euh, et pour euh, Karim bon xëy na ñooñu aussi président dina leen nangul euh, solution solution solution politique. très bien lu ñu cëraloon ci waxtu jeen xam naa dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak internet yi lay seetaan. waaw maa lay remercier Thior di di remercier internet yi aussi ak waa kër gi. am toujours c'est vrai c'est les questions ah <laughs> très difficile que euh, bon sénégalais nañu dal euh, démocratie metti na bon mais amuñu beneen yoon su suñu dalee daal démocratie mën na mën na gën a law mën na gën a sax e je crois que njëriñu démocratie daal muy acteur politique muy citoyen yi ñun ñëpp am nañ njëriñ ci ci ci démocratie merci jërëjëf mbokk internet yi fii la ñuy yem ak yéen tey ci seen débat fii ci Sénégal ñu leen di jox dig daje ajjuma bi di ñëw bu si